Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di am mbégte lool. jàkkaarloog yéen fii ci Salam TV andi leen seen émission ëttu Tooxidoona mu mel ni émission doon na nag comme ni ñu leen ko waxee woon saa su nekk képp koo xamante ni am nga kaa boo xamante ni moom nga dund wala nga gis koo xamante ni dund na lu ni mel te mu nekk loo xam ne lu wér la. te wóor numéro téléphone yaa ngi noonu dee leen ci jaar jokkoo ak ñun su ko defee lépp loo xamante ni dund nga ko ci Toxidoona wala ñu def la ko ak lu mu mën a doon rek nga expliquer ñu ko lu mu gën a leeree incha allah ñu indi ko fii ci ëttu Toxidoona waxtaanee ko bu ñu ko waxtaanee ba pare du ñàkk dinañ woo ay borom xam ñu expliquer ci lu gën a leer indil ñu ci ay solution dinañ ñu indil leeral ba pare indil ñu ay solution su fekkee loo xamante ni la dafa laal sa wàllu diine dina la wax li nga xamante ni sa diine loolu la la may pour nga def ko ak li nga xamante ni sa diine mayu la pour nga def ko. tey nag euh, suñu émission ëttu tooxidoona bi dafa nekk loo xamante ni lu doy waar la ndax bi ñu ko mujjee def la fois passée yaakaar naa ni kenn ku ci nekk bàyyi woon na ko xel muy euh, kilifa gu mag googu nga xam ne dafa am soxnaam ndaw si ne ñaari atu yàllaa ngi nii mi ngi sëy ak moom ci biir ñaari at yooyu yëpp ndaw si di dund lu metti ndax ka dafa bëgg jëkkëram te am na loo xamante ni bu la ko sa borom kër dee teg par guddi du nekk loo xam lu la gënal la yaakaar naan dalay teg stress di la sonal moo waral chaque jour ñu naan leen lépp loo xamante ne yaa ngi koy dund bul ko jël nga def ko ci sa biir xool rek di ko dund di naqarlu ak moom nee naa leen stress baaxul surtout ci jigéen dina la gaaw a màggetal te doo tal sax sa bopp ni nga war a mel doo ko mel kon nag lépp loo xamante ni nekk na stress di la ko def bis bu nekk mu nekk loo dund mu metti lool ñu def la ko bi ngay xale wala ñu def la ko ci bi ngay mag wala ngay teg moom ci fii nga toll nii di ko dund mu metti lool ci yow wax naa la ne la jëlal numéro téléphone yi bu ko defee nga ko ak ñun expliqué ñu ko ngay seetaan suñu chaîne Khadija Media boo ko defee di nga dégg lépp li nga xamante ni loolu lañ ci indi comme solution di nga ci dégg la ci sa diine may di nga ci dégg li nga war a def ak li nga war sa def bu ko defee loolu nga xamante ni moom nga dencoon ci sa xol mu sonal la lool dafay daal di wàññeeku ci yow bu baax a baax ba mujjee sax dañ nga nekk sa jàmm ak salaam. ndaw si nag bi borom kër gi di dundee loo xamante ni neexu ko saa su nekk mu ngi métitlu mi ngi naqarlu mais bi mu demee ba seetaan euh, émission ëttu tooxi doona bi dafa jël suñu numéro téléphone woote expliqué ñu ko. mbokk yi lim ñu expliqué nag mooy li nga xamante ni wax na ni boroom këram bu guddi jotee mu war a nekk ak moom sëy ak moom ndax loolu moo waral kat ñu naan sëy bu nekkee ak moom sax dafay yàkkam ci ni muy nekkee ak moom jeex tàkk ba mu jub moom boroom kër gi jublu ci boppam ndaw si wax na ni bu waa ji nekkee ak moom ba pare dafay daal di dem tëddi xool vérifier xool ndax ndaw si nelaw na wala nelawul su ko defee ndaw si itam da koy bàyyi xel di ko won ne nelaw naa fekk moom it nelawul ndax dafa am lu mu jëfandikoo loo xam ne baaxul te naqari na ndaw si fu naqar yàpp léegi bu xoolee ba jàpp nii jabar ji nelaw na mu daal di dem dugg ci toilette am ngeen baal ma jël fa saabu di ko jëfandikoo ci boppam jàkkaarloog nag ci écran téléphone am loo xamante ne xam naa ñàkkul ni am na image bu muy xool foofu mu di ko jox xëy na la mu soxla ak loolu nga xamante ni moom lay jëfandikoo jabar ji nee na moom loolu sax defu ko dara waaye bu ca paree dafay tëddaat moom waa ji bu tëddee quelques minutes jugaat vérifier waat xoolaat est-ce que ndaw sa nelaw na wala nelawul mu commencé waat nekk ci boppam nee na nii la koy jàppoo ba fajar gi xar su ko defee mu jóg daal di sangu jàpp waa kër gi jiite leen julli bu paree dem liggéeyi te nee na mu nekk kilifa bu mag boo xamante ni tey bu ko waxoon Sénégal tàkk léegi nag bi ñu tourné boobu ba pare am benn waay bi nga xamante ni ma nga nekk ca Italie nekk koo xam te moom it da ko affaire boobu da koo jàpp mu du ko def suba ak ngoon xamul lan la ci moom xamul lii lu mu def ba dugg ko nee na bu koy def sax moom du ko tey man nag damay laaj est-ce que loolu ak wér la parce que ki nga xamante ni day jëfandikoo loolu guddi ba suba jot mu jëfandikoo loolu benn du nelaw ñaar xanaa loolu muy def sax benn yoon ñaar ñett ba ñeent nee na ba juróomi yoon ci guddi gi yaakaaruma ni santé ak wér gi yaram nit ki dina mën na la puus wala mu lay jàppale ci loolu nga dëkk di ko def te du la wàññi dara surtout ñàkk nelaw yi nga xamante ni moom lay nekkee parce que nee dafay tëdd ab diir rek daal di jugaat commencé waa ji nag nee na moom itam saa yu yeewoo rek faw loolu il faut mu jëfandikoo boppam moom it bu paree sangu jàpp julli dem liggéey bu liggéey jee ba wàcc nekk ci ay activité am ba guddi aw rek bala moo tëdd moom itam il faut mu jëfandikoo loolu nee mu nekk lu ko tiis lool nekk lu ko naqari trop nekk loo xamante ni bu sañoon du ko def léegi nag moom itam mu woote wax li nga xamante ni moom lay dund ba pare bëgg ci ay solution yaakaar naa ne kenn ku ci nekk yaa ngi bàyyi xel chaîne bi numéro téléphone yi ñu ngi noonu képp koo xam ne yàlla suñu borom dalaa may xam-xam sa xam-xam màcc jëm ci wàll lu mu mën a doon moo xam rab moo xam loo xamante ni mën nga koo bind jàppale ko ko ak lu mu mën a doon rek moom mi ngi lay tàllal loxo ak nga xamante ni loolu dafa dal kii di borom këram mu di ko dund ñaari at yàlla mu nekk lu ko metti lool nee na moom daal ku ko ci dimbali jàppale ko ci lay ut pour borom këram bàyyi li nga xamante ni moom lay jëfandikoo ndax gënul ci moom. waa ji tamit nee na mi ngi leen di tàllal loxo di képp koo xamante ni sa xam màcc na jëm ci li nga xamante ni moom lay jëfandikoo nga mën koo dimbali. mën koo jàppale mën a fexe ba lii nga xamante ni moom la dëkkee di ko def muy lu ñaaw ba pare muy lu metti ba pare muy loo xam ne yaakaar naa ne sax suñu borom daganalul nit muy sëy ak boppam ngeen baal ma ci waxin bi képp koo xam ne nag am nga ci loo ko mën a jàppalee rek moom mi ngi lay tàllal loxo mi ngi lay déglu di leen wax ne euh, numéro yaa ngi noonu chaîne bi tamit mi ngi noonu seen chaîne la kenn ku ci nekk na nga abone boo abonee di ñu bàyyi xel bu ko defee lépp li nga xamante ne wax euh, expliqué nañ ñu ko fii ci émission bi rek dinañu ko teg waxtaane ko di xaar li nga xamante ni mooy solution gars yi yéen ñëpp ñu ngi leen di xaar ñu ngi leen di tàllal loxo di leen wax ni fii la ñuy yem ak yéen ci seen émission ëttu tooxi doona di leen jox dig daje semaine prochaine incha allah